waaye yéen ah, non d' accord premier mi-temps lañu mën mu ñu deuxième mi-temps. maanaam te affaire bi deuxième mi-temps la ak prolongation. Ah. boo yor benn 15 millions jël 10 millions jox ko 5 millions yi mënut a yor jigéen. jigéen continuité la ni gouvernement nekk Sénégal nekk ah. continuité mais du question que tey damay ñëw jox la dix millions après ma yóbbu la ci benn pantre face baawa ah. kon nangu après lu ñu am lu ñu ko nangu bu ko nangu bu ko nangu xam nga jigéen lan la lan koy jox teral amul teral teral du tuuti man sama jeeg bee ma bàyyi sama kër barki Seydina Mohamed góor premier mi-temps lañ mën mu ñu deuxième mi-temps mënuñu ko non si mu ñu premier mi-temps deuxième mu ñu deuxième mi-temps premier mi-temps lañ mën c'est que dañuy liggéey dañuy liggéey ba lu la sukul góoru Sénégal ngay gis ku yor béykat 10 millions. natt kul la ñuy am 10 millions. jënd oto 6 millions. est-ce que. Sénégal la am jël 2 millions yi takk ci jabar. jël 2 millions yi dem lii dem yàlla. moo tax bu ñu ñëwee ñëw dëkk Sacré Cœur. yaa ngi bëgguñu parcelle bëgguñu géejewaay. yaa ngi soogol ta duñu am kër. est-ce que ma la non déggalu ma la non non du kes dama non du waxuma waxee ma foofu dama lay expliqué paa bi lay contribuer. man mënoo maa contribuer eh, non non da ngay déglu da ngay déglu mënoo maa contribuer. eh ma ne papa ne moo ko wax ne dafa eh déglu leen ko dama ne déglu leen bu baax li mu wax. non kii mu lay wax bokkul ak kii liggéey kii borom la la dégg may déglu borom dama ne kuu la lay wax moom kuu nag waaw kuu ak kuu non kuu waaw kuu takk na jabar waay yoru ko ab kuu la de moom lay wax takk na jabar man bokkuma la ñooñu say booy dakk jabar bokkuma la ñooñu kuu la lay wax kuy waxaale kuy waxaale duma takk sa doom man kuu takk na jabar ko ab ku. waaw takk na soxna waaye yoru kon da ngay préciser foofu laay waxee. sa background mënul dem foofu Ousmane. mais mais mais Ousmane Ousmane moo tax ñu ne la relation conflictuelle mënu ko gis nga Ousmane jigéen bi nga xam ne moom ku la may wax ku takk na jabar waaye yoru ko de. da nga cheminé ak moom ba ngeen sëy. yor amul ay <laughs> takkee ko 2 millions. Ah. di kii yóbbu ko Sacré-Cœur defee ko nii. mais Sophie attends Ousmane laal na benn point bu important. c'est-à-dire nee na yenn saa yi gars yi dañuy am euh, lu ko muy 10 ah, millions. loolu kuu waaw benn 10 millions. da nga koo dajale muy kuu loo xam ne da nga koo liggéey. daal di yëkkati benn 6 millions 7 millions may ko suuf premier premier cadeau. mu des yóbbu ko. yóbbu ko yóbbu yàq un yi. waaw ñibbi si. ngeen loué ngeen loué fi ngeen di nekk. di ngeen dund benn 6 mois. lekk bi commencé wàññeeku. mais ñoo commencé commencé stabilité vie bi commencé wàññeeku. xam nga xam nga loolu tey boo xam ne avant xamee wala woon noonu jigéen ñi commencé changé moo tax ma ni la relation lu neex rek la jigéen xamul na neex rek ah, déedéet papa Ousmane déedéet papa Ousmane Ousmane moo tax ma ni la relation construction la ak ko gis nga am na couple yoo xam ne li tax mu fonctionné ah. ah. mooy ñaar nit yi dañoo cheminer ensemble gis nga sa góor boo xam ngeen nekk ensemble ngeen di génn xam nga ne amul di millions xam nga ko bu indee 10 millions ne la 6 millions yi dama la ci takk di la ko jox yaa koy njëkk ne ko suufi non eh, taxawal soo soo jigéen pour après nga mën a toog doo lekk doo naan shopping lay xalaate Euh, am na naan samay copine defe naa si yow ñi ngay wax. man moom mais mais lii moi j'ai vu des filles qui se disent bu ma jox lii gis nga jigéen bu ma jox lii nañ nañu construire gis naa ko. loolu moo gis naa ko jigéen yoo xam ne bu fekkee da ngeen xamante di nekk depuis. nga dem lijjanti sa benn 10 millions indi d' abord. su amee xel. dina xool fu 10 millions yi jóge. soo ko naree jox 6 millions pour après ngeen nga koy jox euh, nu mu tudd euh, ndox. du ko nangu. dina ne la ni la. Ah. takkee ma 2 millions yi. 8 ah, ah. millions yi ñu xool nuñ ci def dama ne relation. waxtaan la ak avance no léegi nag. soo demee tombe waxuma la ki nga xam ne yaa xam ngeen cheminé de ah. tombe ci benn sofigéey ngeen gisante léegi ah. mooy relation non seulement takk bi doo lay doon na neex rek waaw voilà nan maanaam relation bi ah, yow ñëw nga sofigéey bi nga ko xamee yàggul bëgg nga investir ci moom pour dugal ko ci sa biir kër genre situation yi wala jommal ko c'est ça genre situation yi rek lay indi <laughs> d'accord ki nga bëgg yàgg ak moom doo ko doo ko doo ko jommal hmm. d'accord parce que bëggu la ngir li nga yor d'accord bëgg te yàlla ñu mooy comme que ma yor. oui ma euh, Ousmane nekk Ousmane yow sa jabar dala dominé nag. waaye depuis loolu lu ñu wax nga ne moo comme que ma yor Ousmane Ousmane yow tey dominé on va on va s'écouter on va s'écouter <laughs> Ousmane. waaw Dame Diop tey ba mu tudd ma ku nekk jël exemple ci sa borom kër. Dame Diop tey ba mu émission. Ah, d'accord xam na ne maa ngi euh, émission Dame Diop. mais xam na ne maa ngi émission ah, Dame Diop xam na ne mënu ma ko wuyu. ah bu ma ah, nee tooñ xam nga ma nee tooñ ba mel ni Safiane yi day jël téléphone bi. day insisté bi la ko jeex 88 628 89 90 88 628 28 28 ñu bi xool ba xam am na ñu ci nekk salaamaaleykum Prosper ñu ngi lay nuyu encore une fois euh, merci de nous regarder salaamaaleykum allo bonsoir 88 628 89 90. allo 88 628 28 28 sëñ maa ngi sant yow noo def. waaw damay déglu seen programme bi man Gambie la paa bi daal naa ne jàmbaar la. dëgg la. waaw. lu mu rek. lu wax dëgg la. lu mu wax la soo ko dégloo rek nga njëriñoo. dëgg la. waaw. waaw. allo. la. donc ma. waa ñu ngi fooy wootee. ok ma ne paa bi suma fans la ah, xale bu jigéen boobu am rasta bi. waaw seen programme bi daal dama koy déglu chaque jour. waaw Sophie merci beaucoup ils sont ci Gambie. Gambie Gambie yëpp. waaw. maa ngi Gambie dama portable ak tey rek laa mos a daal jàmbaar la. bilaahi. la gudd ak wér ak wér le. incha allah dinañ ñëw def gis dinañ ñëw foofu nu def gis-gis foofu ci Gambia bi bu feebar bi randoo rek incha allah daan ñëw merci beaucoup ay ci ñu jël keneen 88 628 89 90 88 628 28 allô salaamaaleykum sëñ bi noo def aleykum salaam bonsoir bonsoir monsieur vous allez bien oui ça va et vous super on va très bien oui damaa bëggoon euh, participer ci émission bi. avec plaisir ñu lay waaw waaw di leen nuyu yéen ñëpp nag di nuyu Père Mangone. ñu lay fay bu baax. wax ne moom ñu ngi koy suivre chaque jour. ndeysaan. ñu ngi kontaan loolu di la wax dëgg yàlla xam-xam nga fi wax. wallaay. tey nag damaa bëggoon a participer ci émission bi euh, pour joxe sama contribution. waaw ak ca ñëwal. Euh, pour man jigéen ak góor ku nekk dafa war a xool li la war si sa moroom. Mhm. par exemple góor dafa am obligation yor jigéen. Mhm. donc yor pour mu yor donc force la. Mhm. dafa war a am xaalis bu mu ko mën a yoree. Mhm. par contre jigéen mu am c' est pas une obligation mais c' est optionnel. allo. waa kay donc bu fekkee ne ku góor moo am. ku jigéen ki amul donc on est dans dans une situation normale. waaw ku góor ki mooy yilif ku jigéen ki. d' ku jigéen ki bu amee moom. na jàpp ne. ba tey kële moo ko yilif. waaw mën naa dimbali nag ku góor ki. mais bu boobaa ku góor ki moom bu fekkee ne ku jigéen ki du ko ëppale rek. donc c'est pas mais bu fekkee ne ku jigéen ki dafa yore kër gi. Mhm. ku góor ki moom nekkul ci situation bu normal. léegi su fekkee donc dafa war a kër kër yi ba ba muy dee. Mhm. pour mën a yore këram. Mhm. allo donc ma wax tamit ci beneen cadre muy cadre dominant. ak euh, dominé par exemple bu fekkee dañ ne ku góor ki moo yor kàddu en fait c'est vrai que ñun suñ societé Sénégal par exemple góor ñi dañ leen a jox doole joo xam ne dafa ëpp pour man donc yow bu fekkee ne yow dañ ne yaay dominant ba at bi bu fekkee trois cent soixante cinq jours la xanaa di ngeen dund boo xam ne yow lépp looy dugg wala looy def di nga ci waxtaan ak sa soxna mm-hmm. donc dangay nekk ci cadre boo xam ne dialogue la di waxtaan ak moom décision yi daanaka yéen ñaar yéen a ciy ànd Mm-hmm. mais nag du ñàkk ci trois cent soixante cinq jours yooyu benn moment boo xam ne yow góor ki danga naan lii laay def ku jigéen ki ne giseewul ko ne rek bu boobaa nag dañoo soxla ci ku jigéen ki moom mu bàyyi mm-hmm. te xam ne kii mooy kilifaam mais du looy xam ne mooy saa yu décision ñëwee rek li ma bëgg def loolu laay def mm-hmm. donc muy suñ société noonu lu ko tëralee donc ku nekk tamit bu fekkee ne xam nga la la war sa morom je pense que ne du nekk loo xam ne day compliqué day compliqué donc relation góor ak jigéen jëkkër ak jabar jàppalante la mm-hmm. jàppalante ñaari ndaw yu ko séq mm-hmm. donc pour man bu communication amee ku nekk jox reste sa moroom aussi donc yàlla dina leen dina leen dimbali di kontaan trop nag seen émission kontaan nañ père daf la bëgg a laaj waaw père ma li nga wax lu nekk la lu mën a nekk la say wax kenn mënu koo teggi ndax saa dégg mu bu waaye li ma la bëgg a laaj mooy waa su dee ndaw si dafa taje ak góor bopp du fase xaj borom ma ab néew sax a ko tane ci kër euh, père je suis vraiment désolé mais dégg ma bu baax dégg ma bu baax c'est vrai moom xam naa yaa ngi wax waaye dégg ma bu baax lu xew noonu ah dégg la bu baax donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëñ bi ay ci kontaan nañu nañu jël keneen 88 628 89 90 80 ah Bakary waaw waaw d' accord d' accord euh, euh, Bakary sa papa nee na nga ñëw toppatoo ah, micro bi il faut muy dégganteeg ni muy communiqué la c'est très normal dañu jël keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum salaamaaleykum Sophie waaw sëñ bi noo def man lay lépp naa tur bi nag mais père moom ngoone laa bëggoon ziar bu baax a baax a baax a baax maa ngi lay delloo ziar bu wér waaw man moom mën naa wax ne maa a tuuti ci ñuy woote sax maa ngi judd 17 nekk bitim réew fooy Havre. Havre waaw la Havre la Havre. côté Rouen Paris. dëgg la na nga def. waaw père moom nga ne siyaar naa bu baax a baax. walaay maa ngi leen delloo siyaar. waaw di di ñaan nag émission bi dañuy dégg bu baax a baax wax lu baax lu am solo ngay wax noonu. ndeysaan <laughs> waaw xale laa nag 97 laa juddu mais xam naa ne daal moom. lu bant yàgg yàgg ci ndox du ko tax. ndeysaan nañ delloo seen xale xale yu jigéen ñi. Bakary suñu yaay yeeg suñu rakk yi suñu mag yi jigéen ñëpp nañ dalal seen xel te xam ne góor góor la rek. mu dëgër mu nooy yëpp góor góor la rek. xam nga noo koy xoolee nag ci say bët bu dee jàpp nga ne kii warul mën a doon sa kilifa ci say bët yow. kii doon kilifa jamais ci yow. mu am nag mu ñàkk. mais bu dee nag yow moom ay bëtu kilifa nga koy xoolee. am mu ñàkk kilifa rek lay doon ci yow. waaw maa ngi jégal nag bu baax a baax xam naa ne moom seen sët laa parce que moom ku judd 97 amoo dara loo si mën a wax ci ñu toog ci plateau bi. waaw waaw mais yaa ngi góorgóorlu. waaw Touré man nag dama woote rek parce que dama woote parce que je suis le mieux placé ñëw naa Europe 2012 fanaan ci mbedd bi def lu ne te jigéen a ma fat mhm. téye ma ba 2020. Mhm. moo ma yor sama kàlla jigéen a ma ko jëndal. teewul nag kër gi voilà. Sénégal lañ juddoo am na mi ñu yaree dëkk ba lañ jógee Fuuta am na nu ñu yaree noo xamante ni. ndeysaan voilà ñu ngi góorgóorlu daal. waaw dëgg la <laughs> góorgóorlu baax. waaw père mu a nag la bàyyi xel bu baax a baax. soo fi jéeyi soo fi yéen ñëpp déglu leen père ngeen bàyyi xel. ndeysaan lu wax tey boo ko weddee bu ñu waxee ngeen nangu ko. d'accord te doo leen ci bàyyi xel. <laughs> dañ ko gën a bàyyi xel incha allah. ok merci. de rien. dégg nga Sophie fa mu waxee. Mm-hmm. nee na xale la mais xam nga ne yow kii li nuy waxtaane ma di ko wax lu baree baree bari fekkewu ko fekkewoo ko waaye mën na cee dugal kàddoom mhm. ñu ne lu ko waral barki démb bu ñuy waxtaan maag mu am nag ba si àgg ma ne ko mën ngaa doom gune ne lool mag ku la mën a jur mhm. Mhm. waaw mën ngaa doon gune say at néew lool waaye nga mag ku la jur wala ku la mën a jur nga mag ko ñu mhm. ne nu muy demee mhm. dafa làngoon ak maamam muy maam maa jigéen mhm. saa yu nu ma saan wàcc école su mu demee mair ba moo nu daan yekkal dinu jox maamam xoolal maamu Muhammad bun Abdallah Jonn ki jur way juróom wu jigéen maamu yaay xadi jaane papa da génn thème bi de ah? ma maa ngi ñëw dama lay woon ne la nit dina toll foofu déggal moo ñàkk xam-xam mu ne maa ngi génn thème bi te daanee guma papa damay laajte waaw léegi dama lay wan ne nit dina am at yu néew am maam ju am téeméeri at te soo amee maam ju am téeméeri at yow am nga téeméeri at waaw déggoo ma ju am téeméeri at yar la ah, donte konte da ngaa am ñaar fukki at ak juróom même su génnee àddina woon la ginnaaw yow am nga téeméeri at ndax kala yar waaw wala déggoo ba tey dëgg naa la foofa laay waxee waaw léeg-léeg nit dina yilif ku ko mag mhm. nit dina yilif ku ko jur mhm. nit dina yilif sax magam mhm. ndax ka mu làngal ak ka ko yar ku am téeméeri at su la yaree neel am naa téeméeri at ma ko kel tontu kon téléspectateur bi moom it war na la dégg bu waaw waaw waaw moom laay waxal ndax li mu ne gën a laal kon jëli nga ah. bu baax ma ko moom it na la déglu bu baax waaw ndax li mu ne gën la waaw la waaye gën la goo xam ne Euh, wax na ak man wax joo xam ne kenn mënu koo teeb bi waaw foofu la gërëm naa la lool. ñu jël keneen papa 88